تلون جي وقوله عليه الصلاة والسلام نه اللهم يوبور بي إني أنا كمان أسألك دنا لنيان الحفوة جيقلة والحافية أكجام والمحافاة أكجام له الدائمة تقول أجساخ في الدين في الدين والدنيا أدنى والآخرة أك te mu ne sax boko ko mënee defee xeeti liimaa ak ñaan yi nga xamné dañ ko net leen mu jël ci ab yonante ba waju baax sax nee moy gën rawante na ci alquran li melne ne bu dee yaari xul ahonse ci bo dé lemu khul ahonse bi rabbil falaq khul ahonse bi rabbin nas ak bu dee xéti ñaan yi melne ne yonante bi daan ñaane melne mu da wax ni allahumma aafini fi badani allahumma aafini fi sam'i اللهم عافني في بصري لا اله الا انت سن بروم يال نما جامل سي سما يرام جامل ما سي سما ديغ جامل ما سي سما جيس يو ريك بور اك لام دا واخ اللهم اني اسالك الحفوه والعافيه والمحافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره سن بروم مايما اك جيغل اك جام اكو جامله كو صح فاو ci walu diine ci walu aduna ci walu alakhirah wa qawluhu ak waxam ja moom yonante bi alayhi salaam ne ahodu danaa musloo bi kalimaatillaahi ci baat yàlla yi at taammaat yi di mat min charri ci ayu lépp loo xam ne xalaqa bind na ko moom yàlla yàlla yàlla musal ci barke baatam yu mat yi ki alxuraan ay baat yu mat la yàlla yàlla musal ci mboolem baatam yu mat yi yàlla ma yàlla musal ci lépp luy xeetu ay wu mu sàkk wa qawluhu ak waxam ja alayhi salaam ne bismillahi maa ngi tàmbalee turu yàlla allasi mi nga xam ne laa yadurru du lor maxasmihi ànd ak turam wa shay'un dara fil ard ci suuf wala fi samaay du caagéenu ci asamaan waxuwa moom assamihu mooy aji dégg ja alxalimu koy aji xam bismillahi allasi laa yadurru maxasmihi shay'un fil ardi wala fi samaa waxuwa samihu alxalim moom yuqaalu def na ko wax talaata ñetti yoon moom ñetti yoon lañ koy wax saa yu bëggee muslu rek des na ko wax ñetti yoon moom nag ñaan gu matale la ci muslu moo tax ma ne yuqaalu talaasan sabaaxan ci suba ba masaan ak ngoon maanaam manees na koy bari la wax waaye nag manees na koo takk ci suba ñetti yoon ngoon ñetti yoon waaw fexeel daal suba ngoon rek nga wax bisimilahi lasi laa yadurru joojule suba ñetti yoon ngoon ñetti yoon wa kazalika naka noonu at taxawusu léemu ga allasi ga nga xam ne yàlla lii dana ko topp xamla ko ci ak jëkkam ba tey nee na léemu gi nga xam ni moo ko jiitu sës ci moom rek te mooy ahondu bi kalimatillahi taammaati min charri ma xalaq moom it noon la mën nga ko soxoo moom it yetti yoon suba yetti yoon ngoon waxan xali ibni abi taalibin karamallahu wajha jële nañ ci moom ne annahu naka moom xaala waxoon na ne man araada ku namm an yuxaafiyahoo bu jàmmal bu jàmmal ko bu ko jàmmalee allahu yàlla min jamihil aw jaahi ci mboole métiit yi والأسخام الجانغري فليكتب نبند قوله تعالى وحي بروم بمنى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر السورة بتي مجو سارو دولت ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطحت به الأرض أو كلم به الموتى أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ويعلقه تمكويتك حليه تموم حليه تبطم حليه تيرم بطم fa inna allah naka yàlla taxalaa kawe na yu xaa fii dana ko jàmmal ñu kulli wajaxin ci wépp metit ne jële noo jële woon nañ ci alimaamu xal yu mu baax ma mu ne ku bëgg yàlla jàmmal la musal la ci mboolem xeeti metit yi ak jàngoro yi da ngay bind law anzal naa haadal quraana ba fa saar wa yam teg ce walaw anna quraanan suyirat bihil jibaalu ba ci bal lillahi l amru jamian daal di koy takk nee na boo ko defee yàlla musal la jàmmal la ci mboolem xeeti metit yi وكذلك نكنون من واظب كتقو على آيات النجاة تلاي مجيغا الصفي جروم نار صباحا تشبا ومساء أنغون فإنه نكموم يأمن دنوولو ويدن مجي كما قال نيكي وخي حلي حلي كرم الله وجهه من آفات السماني تقاكي جمانو والطوارق الحدثاني أقوي رنياني خيوخيوي ويحفظه تدنكو الله يالا من كيد الأعداء تتخم نونيا وأنواع الشر أقيت أي wal balaay ak balaa bi fadlihi ci ngëneelam taxalaa kawe na wa karamihi ak tedd nga am ba tey nee nañ alimaamu xal yi nee na li ñu tudde ayaatu najaati a sabahu wala almunjiyaatu sabahu daañu ko tegale léegi nga dégg nee na ku ko taqoo yàlla musal la ci lépp loo xam ne day xew-xewi jamono yu aay ak mboolem xeeti gàkki jamono yu aay dara la musal sax ci mboolem say pexey non ak mboolem xeeti ay yëpp yëpp ak xeeti bala yëpp yëpp ci mbaxam nga la kon nak la yoy matna fonk mom nang koy saxo suba ngoon kon ma baamu ko imam khal yu neena la yoy ñu tudde al munjiyatu sabon su fekke dang ko takko suba suba nga ba jang ko ngoon nga fexe ba jang ko rek yalla musal na ci mboolem yoy ñu tudde yëpp ko defé nak wahiyé ñom moy wahiyé ñom moy ba ci njëkk mooy xul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa mawlana wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun muy benn wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim muy ñaar wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين نيت إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناسيتها إن ربي على صراط مستقيم وينت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قل هي مجرم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم بجرم بن كي مجنا موي ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة الفن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون مجروم ñaar dama ko jang nak janginu hafs janguma ko janginu wars waye boko jang rek mu bax lol ko mo juroom ñaari lay yi nga xam ci lañu digge jariñ lu bari lolou le wa mimma bok na ci li nga ne yustamal def nako jëfëndiko fi hilajil maradi ci faj jangoro ay yan kana jum xiraatul fatiha ti jàng fatiha xale ci tawat ja li annaha ngir naka fatiha shifaawun saafara la min kulli daayin ci yëpp jàngoro kama fil xadiis na mu nekkee ci hadis ba bokk na ci li ñuy jëfandikoo ngir faj jàngoro ak lu jàngoro ja mën di doon mooy nga jàng fatiha te yéene ci yàlla fajal la jàngoro ja ndax hadis ba daa wax ne fatihatul kitaab saafara la ci yëpp jàngoro kon nag dégg la jooju wax wa kazalika naka noonu kitaabatuha ak bindam مقطعات الحروف بير مولي لوني دغ تاي عرف سما توم ها توب ديف نكو فار بما ان تي ام دوخ طاهر مي اجلاب ويشرب تاي نان الخليل اجراغ جا محوها فريتم فريتم باغ ني رخصيتم باتاي نينا فاتح بوكو بيندي مي مو خم نغي دغ تي عرفي ديف با مو بيرو ديف سين مو بيرو ديف ميم مو بيرو تيلي بيغي جانغ بوكو دي خول ان نان تي نينكو بيندي بوري دغ تي عرفي ينا سوكو بيندي نونو ba noppi ne wëlbatiku raxase ko ndox jox ko ko tawat bu dal di naan ane loolu lu baax la lool maanaam am paj la lool ci xeeti jàngoro yi des na ko faje mboolem xeet tawat yi ba tey wa kadhalika naka noonu qiraa'atu ismihi jàng turam wu moom yàlla taxalaa kawe na assalaam te mooy baatu assalaam ni ata marratin téeméeri yoon wa ihda ak benn waxe chinaan ñaar fukk xalal marid yi ci aji tawat ja fa innahu naka moom yabra'u dana wér bi idnillah ci namelu yàlla taxalaa kawe na ba tey neen tur yàlla ñuy wax assalaam boo ko jàngalee ku tawat téeméeri yoon ak ñaar fukk yéena ci yàlla saafara ko yàlla na ko saafara insha allah wa kazalika naka noonu kitaabatul fatihati bind fatiha wa taaliquha ak ak takkam ba tey nee na fatiha soo ko bindee takk ko it lañ weesu woon moo doon jàng ga ak boo ko bindee araf ya dagg nga ko naan waaye bii nag moom mooy nga bind ko ni fatiha bindoo rek daal di koy takk ah loolu ba tey nee na des na ko faje jàngoro kon fatiha ndegum addis ba nee na saafara la ci jëpp jàngoro xamal ne kon des na ko bind noonu takk des na ko bind tam raxas naan waaye boobaa dangay ngay daggati araf ya araf ya tàqali ko hmm, des na ko jàng itam rek jubli ci ak saafara saafaraw wa in kutiba dem bindeef na maha ànd ak moom mutallasul xazali mutallasul xazali rahimahu rahimahullahu taala xasaa yu lay wax yàlla na ko yàlla doole yaram kaana mu nekk ab balaxa di gën a jot nee na sax bu fekkee da ngaa bind fatiha boole waale ci xaatim bi ñuy tuddee musallasul xasaali yi musallasul xasaali yi xaatim la boo xam ne day def juróom-ñeenti kër yetti kër ca kaw yetti kaw ci digg bi maanaam yetti kër ca kaw yetti kër ci digg bi yetti kër ci suuf su ko defee ñu bind ca kaw ba ba dun bind ci digg bi za ha jun bind ci suuf waax na waaw alif xaaloon ko téere bi ma yor yor na ko boo koy jàng da ci gis noonu lañ koy bindee waaw loolu la ñu tuddee musallasul xasaali yi loolu nee na soo bindee fatiha ji boole ci xaatim boobu kon lay gën a baax ko defee nag nga takk ko ngir yàlla wéral sa jàngoro ja nga amee woon mën nga koo bindal keneen tam mën nga ko defal sa bopp mën nga koo defal keneen wa bu def na bind li kulli ma ñeel lépp loo xam ne yaxdusu dana sosu fil jasadi ci aw yaram min dummalin ci taab wa xëyri ak ludul moom wa yum xaate dee fi ko far bi maa ci am ndox wa yu rashu te dee fi ko wis xale fi ci moom fa innahu naka moom yabraw dana wér bi idnillah ci nameelu yàlla tax laa kawe na dana lii mu lay bëgg a wax soo gisee nit dara dal ko ci deru yaramam ni ki xeeti taab yeeg góom yeeg yooyu yëpp rek ci la xamal ne kon des na ko ko faje mooy da ngay bind lii mu la bëgg a wax raxas koog ndox di ko ci wis nag rek di ko ci wis rek loolu nag loolu moo di bismillahi rrahmani rrahimi baraatum min allahi wa rasulihi ila kulli illatin la tuqiihu wala turiihu abadan insha allah xabatun talaxat fi saxratin sammaa la asla laha thabit wala faraxa laha naabit bismillahi arqiika من كل داء يؤذيك والله يشفيك ويعافيك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نصفا فيذرها قاحا صفصفا لا ترى فيها حوجا ولا أمتا أيها النابت في جسم الذي يموت مت بقدرة الحي الذي لا يموت علي ابن ci وصلى الله على سيدنا محمد وسلم قال هو sallam بعض أرباب الخواص na ko جغليه loolu tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim baraatun minallahi wa rasulihi ba ba ngay bind wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam nga koy bind raxas ko ba mu defum ndox su ko defee nag bu la dara dalee ci sa yaram moo xam loxo yi dale la moo xam ak taab la moo xam góom la lu mën doon rek des na koo faje da ko ca wis rek nag moom wis bi nag amul waxtu waaye mën nga koy def wis suba wis bëccëg wis ngoon ndax bu nekk ca takk waqaala wax na baaduhum leen ci ñoom ne wa mimma bokk na ci la nga xam ne yan faaw dana jëriñ li xarqin nasaa ñeel li ñu wax napp xirqun nasaa li xirqin nasaa mooy li ñu wax napp napp nag jàngoro ji metti la joo xam ne day dal ci tànk yi te naqaree faj am na ñu koy baaxoo faj nag ci réew mi am nañ ci siiw daal wa dummali ak taab wa tulooli ak picc wa salxati ak góom wa baax doom lenn ci ñoom nag yu xabdiru day firee bi uslooli ci uslool badala tu'looli mu wecc baatu tu'lool ay yaqar amu jàng xale yi ci moom talaasat ayaami ñetti fan alfatihata fatiha ak wataral jibaala taxsibuha jaamidatan taxsabuha wala taxsibuha jaamidatan wa hiya tamurru marra saxaab wa yasaluunaka xanil jibaali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadaruha qaaxan safsafa laa tara fiha xiwajan wala amta wa matalu kalimatin qabiisatin كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على خروشها قال أنا يهيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام مت أيها الهرق داهل مت داهل أيها الهرق يا نبجي ودملو ولا يو wa su loolu wala yow picc bi awil us loolu ndax ndegam nee nga woon su loolu daañu ko wax us lool ba tey wa ak yow bi bi isnillah ci namelu yàlla nee na bu lan ab ak wax nap wala taab wala picc wala góom su loolu bi ñu binde tombañ teg ci am sa am na ñu ko wax nee na ci seen waxin us lool maanaam def am sa ba noppi teg ci siin soow us lool kon siin soow lay doon bu boobaa waaye lu ci mën doon ne picc lay firi ak salxatu mooy firi góom yëpp nee na lu ci mën dal rek des na ko faje nga tegale ñetti fan boo xëyee rek jàng faatiha teg ci wataral jibaale ji ma waxoon léegi ba agsi ci fa amaatahu llahu mi ata haamin su foofu da xool la dal nag bu dee napp nga nekk mujjeexal ayuhal xirqu yow